تقرى إلى الله ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ko ngir mën xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew jóg taxaw magal yonent bi jar na ko ba góor xaalim moo ba góor ba góor xaalim Mahmoud bëggul ruus bëggul xa waa jama gaaju jug leen safam la doon jox naari ba parasol bi du ragal tangay junj la baayu baabaka magi Abdu Mansour Habib Thiade bëggul bëggul xaalim أن يكون ذا المعادن أن يجاوزوا أن يجاوزوا من يجاوز أدنى من يجاوز من يجاوز من يجاوز من يجاوز أدنى لا حافظ جوبو يا بموتات بموتي تكفير لا حافظ جوبو البموتات تكفير يا يا رسول الله محمد الأمين وسلم سيد مالك يقرب بوي فهو بقى اه نينا لو قدرة منة من قبلها هزم هزم جيفر تدنجا بنى بنى بنى بنى بنى بنى بنى بنى بنى بنى بنى بنى بنى بنى بنى بنى Maodo nee na nga ne la wax wa xudratun minnatun min qabliha ajamun kiiraay bi ñuy wax ay sama gi firi màgg Seydi Hadji Malick nee ba ñu bindee Seydina Muhammad mii jalaal yàlla dugal na ko fa di ko nattu fukki junney at Seydi Aji Malick dina Seydina Muhammad di leer di mbëkki leeru izza ak turu yàlla bi ñuy wax laa ilaha la di ko dóor leer gi di toj muy dóor leer gi di toj muy dóor leer gi di toj ba muy fukki junney at leer gi ne tas Seydina Muhammad jàkkaarloog beneen xiiraay wa qudratun wa rahmatun ngii firi ah wa shahaadatun shahaadatun ngii firi texe Seydi Hadji Malick nee na yàlla da koo bindoon mi kiiraay mu ne Seydina Muhammad sag may dafa màgg dangaa war a ànd ak saxaada bon kiiraayu saxaada danga ko war a toj ba mu nekk nit wala ba mu nekk jëmm ju mën a dugg jëmmu doomu aadama yàlla di ko nattu nattu da ko fa juróom-ñeenti junni at Seydina Muhammad dugg si kiiraayu saxaada di dóor turu yàlla bu ñu naan laa ilaha illallah di ko dóor di ko dóor kiraay gi di toj muy dóor muy toj muy dóor muy toj muy dóor muy toj Seydina Haaji Maalik nee na am na fa juróom-ñeenti junni at kiraay gi na tas Seydina Muhammad dugaat beneen kiraay lu mu teg man kiraay karaamatun gi firi tedd nga yàlla yàlla nee na Seydina Muhammad moo ko liggéey doomu aadama bañ ko liggéeyee muy jalaal Seydi Aji Malick nee na yàlla bind karaama mu nekk kiiraay Seydina Muhammad ne danaa ko liggéey jox ko sama askan bi yàlla ne ko danaa la fa natt juróom-ñeenti junney at mu dugg fa di dóor tur yàlla buñ ñu naan laa ilaha di ko dóor di ko dóor kiiraay bi di taj muy dóor xam nga lan mooy kiiraay pour ngeen mën maa dégg miiru suy wala miiru àndir ñu ne la ko ngee ko sa baaraam bi ba bënn miiru àndiir bu ñu taf ciment ba mu saf nga jàkkaarloog moom am lu nekk ci biir nga bëgg kaa jox say njaboot ñu jëriñoo ko ñu ne la duñ la jox weñ duñ la jox marto duñ la jox bant xam nga lan moo fi nekk say loxo ngay koŋ di koŋ ba mu bënd Seydi Hadji Malick nee na benn kiiraay bu ñuy wax karaama juróom-ñetti junney at Seydina Muhammad nekk fa di koŋ ba mu ne tas mu dugg ci biir jël karaama jox ko xeetam bu mu ci teg.

mooy njub xeetu Seydina Muhammad bu leen yàlla séddee njub nee naa la ñu ngi ko amee ci barke Seydina Muhammad yàlla ne ko kiiraay gaa ngi nii danga koo bëgg jox sa xeet Seydina Muhammad ne ko waaw mi ne ko juróom-ñaari junney at laa lay natt Seydina Muhammad nekk ci di ko fëgg di ko fëgg di ko fëgg ba mu ne tas mu dugg dafa guddi Mara li ma soxla laa bëgg akrim akrim bi man sajadatil askar ku ma soppal góor nga dëgg tiwaa woon neel ni sa loxo ma joobe rasool يلا نينك ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما انزل ابوهم فهم غافلون لقد اقل قول العكشرين هم لا يؤمنون الى جانا على الله في الاسقانهم هم مقمعون وجعلنا من بين ايد الشدة ومن خلف شدا فاصدهم فهم لا يبصرون انا اكرم اكرم بمن صدرت الازدياء جاي لاج نانكو غودون يالا نكو مالاي تونتول والله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزور دي كل وكفى بالله شهيدا ومد رسول الله ارشد على الكفار رحم بينهم تراهم ركعا سجدا يبتقون فضلا من الله ورضوانا شما في من ذلك من في التوراتي ومن في الانجيل كزرع نهر شطه فاستعلى فاستعلى سخي ليزور الكفار ودلو ليزور امنوا وعملوا الصالحات من منهم مغفرة وأجر عظيم أكرم أكرم بمن سجد الأسجار góor gi nee na أكرم tedd nga ñenn Seydina Muhammad bi man sa waa da nga xam ne nii sajadati su jootal na ko al asjaaru garab yi. waa ji dafa toog jàkkaarloog Seydina Muhammad na fa toog jàkkaarloog rasulillahi na ko yàlla la njol màkk na ko waaw mu ne ko damaa bëgg nga ool ma garab ji mu ñëw ci man. shaka ilay jamalul mawla Seydina Muhammad ne ko léegi léegi ñu toog fi ñu toog Seydina Muhammad ne nii yaa sajaru garab gi deqate ay tànkam uti waa ji waa ji nara daw rasulullah ne na ko bul daw lii garab la garab gi ñëw na ko maa ngi lay seedal na yow la yàlla yónni li ajli waxaabati l anhaar saka ilayhi saka ilayhi jamal saka ilayhi jabalul mawlaahu rasulillahi saka ilayhi jabalul mawlaahu ilayhi jabalul mawlaahu déglul bu ko ko benn benn tant bi toog leen ma toj ko saka ilayhi jabalul mawlaahu waa ji dafa waree gëlëm gi saam uti makka ba muy takki gëlëm gi mu fàtte ko nandal gëlëm gi ñëw a ñëw a ñëw ba biir makka waa ji wàcc si gëlëm gi di jaay ay lekkam gëlëm gi ne yow rasulillahi maa man lay seedeel naa yàllaa la yónni mais dama lay bàttale waxal sama waa ji war ma dugal ma ci dëkk bi su ma génnee dëkk bi danaa ko rey mara may bëgg rey ta xamu ko damaa bëgg mu nandal ma Seydina Muhammad waa ji ñëw mu ne ko eh sa gëlëm gii nee na nga nandal ko ma ngay génne sa dëkk ba nandaloo ko te boo ko nandalut boo génnee dëkk bi dana la rey waa ko lu koy xamal rasulilah ne ko taxawal mu taxaw mi ne ko yaa gébelu gëlëm gi ko la bayka yaa rasulillah min coono bi ko waajit teg la gëlëm gi jàmbatal Seydina Muhammad Seydina Muhammad faj ko wa sayida dabbu law risala wa sayida lahu risala wa sayida dabbu eh, lahu risala wa sayida dabbu lahu risala rasulillahi wa ji dafa xëy ruuji ji dafa xëy ruuji mu xëyee ruuji fa benn mbët rey ba mu rayee mbëtt mi mu dagg bopp bi bàyyi ko sa àll ba jël bant roof ko ci ron gi mu génnee ci doq ji mu teg ko ci doq gi uti Makka ñëw fekk Sirina am di waare nan yàllaa ma yónni waa ji ne ko yow lan moo may xamal na yàllaa la yónni Sirina Muhammad ne ko yàllaa ba yónni mu koy saboote na ko bi dee yàllaa la yónni wax loolu mbëtt mi nii sama gannaaw di ko saboote Sirina Muhammad ne ko léegi léegi waa ji teg mbëtt mi Muhammad ne ko yaa dabb mbëtt mi ne ko la bayka yaa rasulillahi wasabi oh, wasibu bi laa eh, mujadala taqabbala taqabbala ra'sa nabi saato eh taqabbala ra'sa nabi saato dama ne taqabbala ra'sa nabi saatuhu Seydina Muhammad dafa génnee Madina Munawwara dafa génne mi ne mun na war a ànd ak Ababacar Sadiq xiif dab leen xiif dab sama gaay yi Seydina Muhammad dem ba ci dox ba ci kam seen benn seen benn benn benn benn benn benn benn dalingeer maanaam maam nu ko wax benn nuuru ba benn màngaan ci àll bi mu séen ko mu ne Ababacar dafa mu ne lali may seen màngaan la mu ne ko waa mi ne ko ñoom baaxoo dañ di am meew xiif moo ma sonal man rasulillahi damaa bëgg nga dem fa ñaanal ma meew Ababacar dox ñëw ba jàkkaarloog màng bi fekk jëkkër ji sàmmi na jabar jaa fa nekk Ababacar ne salaamaaleykum ndaw si na ko waaleykum salaam waaleykum salaam mi ne ko dañ ma yónni sang bale toog moo ma yónni di ñaan meew mu mun naan xiif da koo dab ndaw si na ko wallaahi xaw ma foo dëkk mais yow sa kanam gi leer na lool waaye ooma meew su ma amoon meew may la mais ooma meew Seydina Mouhamed Ababacar ñëw na ko ah ndaw Serigne nee na amul meew Seydina Mouhamed jug yëngal bopp bi karaw gi naaw mu yëngal bët yi bët yi bu ne la jàkk la kay weex dafa weex ne tar lu ciy ñuul ñuul na kuk bët ya yaa sëñ ba sëq moom Seydina Mouhamed bu ne la jàkk boo gëmul du xefam rasulaay boo leen dajee ci yoon mu xat moo lay njëkkee jàddal bu ne la salaamaaleykum roof la loxo fekk bàyyi woo du bàyyi moom Seydina Mouhamed gën a baax ñëpp gën a rafet ñëpp gën a jekk ñëpp yelloo alal wan ko gannaaw aha nexbar gi ci daawda waaw waaw nguurug Suleymaan aha te muy dëgg te muy dëgg déedéet bul jàll bul jàll bul jàll arriéraatal bul jàll arriéraatal fo këy baay te xabbala rasa nabi saatuhu Seydina Muhammad ne Ababacar la la may séen dafa mel ni béy la di béy gàtt Ababacar na ko waaw waaw mi ne ko nekk mu may ma ndigal ca gàtt bale Ababacar ñëw na ko yaay booy sang bi nee na nga may ko ndigal ca gàtt bee boo ko ci mayee ndigal mu ratt ci ndaw si ne ko sëñ bi bañu ma gàtt bee ne loof boo ko teree sàmmi gëñ naa am doom depuis ay at ngir yàlla nee ko damaa amut Ababacar ñëw ne Seydina Muhammad ndaw si nee na gàtt ba la tëdd loof moo ko teree sàmmi te ay at a ngi nii amut doom ndaw Seydina Muhammad ne ko nekku ma may ma ci ndigal yàlla du tas yaakaaram mukk wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuhaa moom Seydina Muhammad yàlla nee na ko alam naxlaq sadraka wa wadaana anka wizrak الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يلا ننك والضحى ولل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيم فهو وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى ويتيم فاتقهر فتقهر ومسئل فلا تنهر ما بنعمة ربك حديث yàlla tas yaakaaram moom góor gi yàlla ne Seydina Muhammad ne Jibri ne ne Ababacar Sadiq neel ne ko na ma may ndigal ci gàtt bi mu ne ko bañu ma mais gàtt bi dafa loof Seydina Muhammad jug ñaadam ñaadame uti uti ndaw si Umu Maxbata ba mu ñëwee ba agsi Umu Maxbata ne ko góor gi bañu ma laa may mais gàtt bee loof Seydina Muhammad ne ko may ma ci ndigal may ma ci ndigal léegi léegi umu max bata ne ko gàtt baa nga ne Seydina Muhammad waaxu uti gàtt bi yàlla ne Jibril dawal na ba tey fees del kii du tas yaa ku iñaan du gërëm ku soxor du gërëm baadoola du gërëm ku iñaan du gërëm ku soxor du gërëm baadoo la du gërëm réew di Sénégal ku Maodo jàngalul kala jàngal kako jàngal kamu jàngal kooku Maodo may ki ko jàngal للجرامة مدرسا كل علم سكان مدرسا بين المدارس بي بانا وسودانا كم عابد زائر كم عالم ورئ كم سالك واسل المنبوي لولاك ما كان kamtan surul elma takrid taqrid duyuf awakamu turdil ila awakam asad airana mam yaraludul saterbi kurus gi ak sagop bi fi ga kharo sajangu bi li ga saxal ma badiop fakh jarama senegal as Sénégal loxo maam aas Sénégal loxo maam aas bi Sénégal loxo lu ko mooy gaal gi dootul dem maam aas Bakke ba ñu ngi jégluwaat bu baax boo déggee ni ñuy waaye sax xam ne suñu baax yi dafa bàyyi semaine bi yëpp wallahi tooguñu ñu ngi jaabante démb ci gàmm fanaan ñu xëyaat ñëwaat tey fanaat ci gàmm rasulullahi mu ni seydina muhammad mooy aslul akwaanin wa arsali muhammad mooy jaamiul jaysi wa abtaali ku soppi nu yàlla muhammad defal ni ñu màggal ko seydina muhammad nuurul akwaanin وفوزهم محمد ميفا هذه القلق وارسالي كسبين ديال ماما ديفل نيوم اغلك آه. اه واو واو الى الله وحده ينال المقام لا رجع لغيره محمد حامد حميد مقتدرا فوق الأكابر من هرب ومن عجم ليس النبينا والأرثال كلهم بالمدركين للسر أحمدا علمي ولا ولي ولا قطب ولا ملك قد أتى الله بالمدي ومنكتم كوكما رسول الله فحقق حق الحق والحق حقه ولا حق في حق يهيقوك أقي واي ويدبل ني ماغل سيدنا محمد سيدنا محمد صافي الأخيار جملتهم محمد وإلا بذل تقوى والإكمال إكو سبينا دي الله محمد ني ماغل كو سيدنا محمد سيدنا محمد waaye xanaa yéen sopp li nit yàlla muhammad seydina muhammad nuurul akwaani wa fawzahum muhammad mooy faatihul xalqi wa saaliku sopp yi nit yàlla muhammad dafa li ñu màggal ko gini bu ñaaw la ñu defoon nabi ken ibunya ñaaw lañu defoon na fi gën sajudu bii di maakatal mu gën a ànd ak Ababakar Sadiq ma njëkk a gëm Ababakar ma njëkkoon a gëm Omar Dagay Ndéeg Ousmane hali birga ji ya ah dem leen ma nii seen loxo ma ñëw xam ngeen ne jama gaajo xam na yi nga néel xaqiqa bi fi nee du ola xali yàlla la ñu te mooy jali maam góor xarita fa waay jëlal ma nii seen loxo yi ma ñëw Medina Alhaaji Bay Sëriñ Mbay Medina Alhaaji Bay Mbay Medina Alhaaji Bay Mbay dina alhaaji bay a seexa fa jambaton botom njëriñ feebar ba ngi ni kii du wér ma fajal la ci mbooti seexa gën a fukkeelu fan boot ak benn fan ci weeru koor moo njël bi yu naan seefa ñu bay ne boobu fan at moo ne bëgg ba waa yaay dalal ma nuyu seen loxo yi ma ñëw xalifa alhaji basiru ndaw xalifa alhaji basiru ndaw xalifa alhaji basiru wax leen xalifa alhaji wax leen xalifa alhaji ah na fi yàgg ñaan na ma di dal magar rek yaa njaboot gi daal amin bi jaay waay de leen ma nii oh, seen loxo yi ma ñëw seex yaa dogal daal sey ko ndaw farox ma daaru mooy la siiw sama janiir nga ko fa yoon yónni kon yaa ko gindal ah, lekk aa ti waawal li ñu xamal lu leen ko may bëggante gëm yàlla ak nabi topp seeni waajur jiital njaboot Mamadou xaritab waay te leen ma nii seen loxo yi ma ñëw fàttaliku leen borom ngërëm fàttaliku leen borom ngërëm Alaaji Maodo kokoy kamal Mamadou Malick kok wax leen Mamadou Malick wax leen Mamadu Malik wax leen Mamadu Malik ah mi ko yore defar jikko ji waaye rëy san waaye da leen ma nii seen loxo yi ma ñëw xam ngeen ne lii na bee ko jar jar na tagg moom ba xëy mes keroog bi sum njëg ma tera da ñee ñaa daa dag ملده بما قتل في يمين لسنين لا أمون فوق بنعاتي قامت لماك هم كانوا قنية وخ آه فتل لكل برم غرم فتل لكل برم غرم Alaji Serigne Mbaye kokoy wax leen na Alaji Serigne Mbaye wax leen Alaji Serigne Mbaye wax leen Alaji Serigne Mbaye wax leen alhaji Serigne Mbaye wax leen alhaji Serigne Mbaye wax leen alhaji Serigne Mbaye wax leen alhaji Serigne Mbaye wax leen alhaji Serigne Mbaye ah mi ko yore de fere jikko sadiq ba fekke na ah ndoku Serigne Mbaye de moo nga toog calal ba booloo sax nañu calal motor yu baax yu bokk ko tar de rek la ci waa daleen ma nuyu sana loxo yi ma ñëw daleen ma nuyu sana loxo yi ma ñëw kon bil Mustafa amul bil Mustafa wax leen kon bil Mustafa wax leen kon bil Mustafa waa bu ko diin bëgg dus a nabi du ma sa doon mu aram biram yéeme na mu am nabi ah yàlla na buur yàlla nangol la yàlla na buur yàlla na buur la jaruma ko na tuddee ko jar ngeen bëgg yàlla moo ko xam naa amadi jaañ ah faa dolli ko leen benn ngëneel faa dolli ko leen benn ngëneel faa dolle kulle na ɓe nene ngeneel so kaatim ko koy kamal kaatim wax leen so gara kaatim wax leen so gara kaatim wax leen so gara kaatim wax leen seen darakaatin a yàlla mi ko yore di ferje ko sa dëgg bo fekk na a alaji katim sanku dana dundam alaji katim sanku dana dundam katim suma baay la wax leen katim suma baay la wax leen katim suma baay la wax leen katim suma suma baay la wax leen ne kaatim suma baay la meer kaatim suma baay suma baay la wax leen ne kaatim suma baay la wax leen ne kaatim suma baay la wax leen ne kaatim suma baay la wax leen ne kaatim suma baay la aa ah, ku ko koodoo weer na te nii am na lu ma boo ak aa ah, yàlla na buur yàlla nangol la jaruma ko yonent bi ko jar jaruma ko naadi moo ko jar jaruma ko kaatim moo ko wax leen jaruma ko kaatim wax leen jaruma ko kaatim wax leen jaruma ko kaatim wax leen jaruma ko kaatim wax leen kaa dogoonal wax leen jaruma ko kaatim moo ko jar wax leen ne na tamit ku ñuy wax Malla Mbaye ndax jàpp nañ ne gàmm gi ak bu jot daf fi ñëw mais waaw waaw waaw waaw lii gën a Malla Mbaye moo indi groupe am indi décoration te moom tamit laaju dara loo ko jox rek mu dem ak moom ak ku ñuy wax Keba Cissé mu jógee ba kër ba kër yi seetlu nañ ne tamit gàmm bu jot daf fi ñëw fi ñuy jeexalee rek mooy si commission bi am na nag benn commission boo xam ne dañ ko fal fii commission boobu nag bu kaso rajo bi di waaj a teru ñooy faral di daje di waxtaan di xool naka la ñuy def ba mën a def gàmmu gu mucc ci ayib comme na ko Mouhamed Ndiaye waxoon démb si guddi rek képp koo xam ne yaa ngi nekk jama gaajo ñu ngi lay woo nga ñëw bokk si commission bi ndax ki fi nekk moo mën a dem jëli bâche ki fi nekk moo mën a dem jëli si waaye ki fi nekkul mënul def loolu ki fi nekkul xalaat rek la mën a joxe kon nag commission bi.

waaye ñoom pàcc bi ñu leen jox matal nañu ba mooy sëkk di si gërëm tamit bàyyi bés ndax nekkoon na si waañ moom tey du doon fii ñoom alaay Cheikh fàttewuñu leen xam naa pour ñu waxee rek ku lim doo di wax commission bi tamit am na bureau ki nekk président bi mooy ne ñu di toog ku nekk Baye Imam Mame Gour Mbaye ki nekk trésorier wax la ki nekk secrétaire bi mooy Matar Mbaye xanaa fu ñuy jeexalee tamit rek dañ ko fàtte woon di nuyu doomu jamongaay yi nga xam ne ñu ngi nekk si dëkk yi nga xam ne bu jamono def bi ni waa si surtout Malick Mbaye ak Mody Mbaye ak enveloppe solo di gërëm tamit waa Dakar yi surtout Cheikh Sall ak Mody Mbaye ak euh, Mody Thiané ñoom solo waa Serekunda yi ak waa Buur yi di gërëm tamit waa diaspora yi surtout suñu baay yi wujjee kon nag pour bañ a la ñëwale kàddu gi lu si jub yàlla tamit am ne doomu aadama moo matul kuy limu rek jàppal ne yow yaa jiitu si ñuy can asalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla nañu ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew